Matthieu saar ñaar bi nga xamee ni yéesu judd na ci betleyem ci diwaanu yude amoon na ay boroom xam-xam ñu jóge penku ñëw yerusalem booba ci jamonoy buur bi erod la woon ñu ne ana buur bi juddul yawut yi ndaxte gis nañu biddiiwam ci penku te ñëw nañu ngir màggal ko bi ko erod buur ba déggee mu daldi jaaxle moom ak waay Yerusalem gépp mu woolu nag saraxalekat yu mag ya lépp ak xutbakati xeet wa laaj leen fu almasi bi maanaam kirist war a juddoo ñu ne ko ci betleyem ci diiwaanu yudde ndaxte lii lañu bind jaalale ko cib yonent yow betleyem ci diiwaanu yudde du yow yaay yées ci njiitu yudde ndaxte ci yow la njiit di génne